muy investissement bu am solo presque ëpp mille cinq cent lanterne ci lu toll xaw a toll ci ñaari téeméeri million di investissement bu am solo yaakaar naa ci histoire u ci marché bu ñu def ci éclairage public ci marché yi ci ëpp doole lépp li ko waral mooy dañu bëgg Thiès yépp takk lamp yu tàkk daaw am na lu ñu jéemoon ci centre ville bi am na lu ñu jéemoon Euh, ci yenn artères yu mag yi loolu 65 millions la woon mais rek ñu jël lu mat presque 200 millions def ko ci parce que dafa bëri ay quartiers yu nekk ci biir dëkk bi yoo xam ne dañu lëndëm aussi te ñooñu dañuy yaakaar ni bokkuñu ci dëkk bi donc moo taxoon ma jëloon engagement ci Thiès waaye ma jëloon engagement aussi su may dox ci dëkk ji monsieur le maire ñun de dañu am dañu nekk ci lëndëm xanaa doo ñu jàppale ñu génn ci lëndëm googu ñu def ci investissement bi pour Thiès ku am benn quartier boo xamante ni lamp tàkku fa loolu mooy objectif bi te yaakaar naa d'ici l'année prochaine couverture universelle wala tubaab di wax couverture universelle mooy Thiès lamp yëpp di tàkk quartier yëpp di tàkk loolu yaakaar naa dinañ ko am fii ak l'année prochaine incha